merci à tous les téléspectateurs yi nga xamante ni yéen suivre Rewmi TV da leen a jàmm ci seen premier numéro bu seen émission biir réew mi euh, comme ni nga ko gisee ci band annonce bi émission bi réew mi nag dañuy waxtaanee fànn yu bëri li ko dalee éducation santé euh, bien-être société lépp daal ñu waxtaanee ko ak suñu ay invité ay kàngam yoo xamante ni seen xel dafa màcc euh, ci wàllu yi nga xamante lañ leen dalalee wala tey nag nekk seen premier numéro ñu fi dalal benn biologiste nekk aussi fi nga xamante ni moom mooy Thiaroye Roy ak ci yenn lycée yi nga xamante ne ñu nekk ci banlieue bi donc laataa ñoo dugg rek ci waxtaan bi ak thème bi nga xamante lu ñeel wàllu euh, immunité bi nga xamante moom moo ñeel wàllu nit ki biir yaramam euh, feebar yi nga xamante ni dugg euh, lan mooy différence entre microbe yi ak virus yi ñu waxtaan aussi ci coronavirus bi ak vaccin bi nga xamante ni moom moo lëmbee biir réew mi di andi tuuti ñenn ñi nga xamante ni ñoo bëgg a vacciné wu ak différence bi am ci type de vaccin yi am ci biir àdduna si donc monsieur Sy ñu ngi lay nuyu baax baax di la jox sa wàccuwaay Serigne Mor di fay di la ziar bu baax a baax di nuyu groupe euh, mu TV aussi di leen ndokkeel si jour bi waaw voilà donc euh, nga nekk euh, professeur de SVT mais aussi euh, jaar ci faculté de biologie laataa nga nekk professeur de SVT donc tey nag ñu war waxtaanee lu am solo loo xamante ni moom moo lëmbe biir àdduna ci muy li nga xamante ni mooy coronavirus mais laataa loolu dafa am lu am importance loo xamante ni je pense que nit ñi dañ ko war a xam muy nit ki yaramam naka la tëddee ak li nga xamante ni moom mooy waral nit ki di am feebar laataa loolu est-ce que mun na ñoo xam ba ñu mënee utal tuuti benn li nga xam définition wu nga xamante ni moom moo woo moom mooy saytu wàllu wér-gu-yaramu nit ki ak feebar yi nga xamante ni mooy dugg ci mbir biir ndax biologie la wala dafa am leneen loo xamante ni moom mooy saytu euh, li nga xamante ni moom mooy euh, wér-gu-yaramu nit ki. waaw comme ni nga ko waxee rek ah euh, biologie dafa vague parce que soo waxee biologie am na biologie animale am na biologie végétale aussi ah. mm-hmm. donc ñun ci biir biologie animale ak végétale yëpp ce qui nous intéresse ici bon mm-hmm. mooy biologie animale plus particulièrement mm-hmm. te am na benn branche ci biir biologie aussi boo xam ne moom mooy saytu walla moom mooy euh, jàng lépp luy microbe mm-hmm. ce qu'on appelle la microbiologie mm-hmm. donc microbiologie le plus les microbiologistes ñoom ñooy saytu lépp luy microbe bu nekk ci yaram nit ki mm-hmm. ci animaux yi daal de de manière générale aussi ah voilà si loolu mu mel ne dañuy wax système euh, immunitaire bi nga xamante ni moo correspond ci wàllu mécanisme de défense système immunitaire bi ndax euh, nit ku nekk da nga am wala am na ñenn ñoo xamante ne day judduwaale sans am li nga xamante ni mooy système immunitaire. waaw système immunitaire nit bu nekk am na ko mais aussi foog ñu comprendre que système immunitaire daa am ñaari groupe hmm. système immunitaire boo xam ne c'est naturel ak boo xam ne c'est acquise. Hmm. raison pour laquelle dañuy nee ni réponse immunitaire spécifique ak hmm. réponse immunitaire non spécifique spécifique mooy wàllu ñuy wax système immunitaire inné ak spécifique euh, spécifique ok donc inné bi nag bon damay jël exemple comme la peau rek boo xam ne ça permet de protéger euh, l'organisme contre les les microbes mhm. am na aussi tamit euh, la larme mhm. am na aussi ci gémmiñ bi bu ñu wax les lysosomes de la salive bëri mhm. yoo xam ne c'est c'est comment dirais c'est des réponses immunitaires qui sont non spécifiques, c'est-à-dire innées. Mm. am na le système de la phagocytose qu'on appelle le mécanisme de la phagocytose aussi am na les interférons antiviraux bëri na. Mm-hmm. maintenant quand on parle de réponse qui est spécifique maintenant c'est ce qui est acquise. dans mm-hmm. ce cas daa am yeneen défenseurs yoo xam ne ñoom ñooy agir au niveau de l'homme de mm-hmm. l'organisme. Mm-hmm. donc différent bien sûr des des réponses qui sont natu qui en naturelles. Mm-hmm. mais euh, l'habitude ba ñu nekkee xale ba léegi ñuy jàngal naa ñu ci euh, organisme bi am na ay euh, systèmes yu fa nekk lu ci mel ne les globules blancs. ak yeneen globules globules rouges yi ku ci nekk sa rôle. donc fi mu nekk nii nit ki naka la yaramam di réagir ci bu jàkkaarloog lu mel ne comme sa benn genre feebar bu ñëw dugg ci dugg ci yaram bi. ok comme li nga wax rek ah depuis mën naa ne depuis quatrième an la ñuy wax il y a des globules blancs qu'on appelle leucocytes des globules mm. rouges qu'on appelle euh, hématies euh, les plaquettes sanguines qu'on appelle globulins maintenant quand on parle du défense de l'organisme donc globule rouge mënatu fa am wàll plaquettes sanguines yi aussi mënatuñu fa am wàll donc leucocytes yi wala globule blanc ñoom ñooy agir mhm. te ci biir globule blanc yi aussi tamit dafa am ay répartition mhm. raison ñëwaat ci ginnaaw lu ñu jot wax léegi-léegi réponse spécifique ak réponse euh, non spécifique mhm. raison pour laquelle différenciation aussi euh, globule blanc yi am parce que bu nekk daa am fu muy euh, agir bu nekk aussi daa am rôle bu muy jouer bien vrai que tous les globules blancs sont les défenseurs de l'organisme sont des fossoyeurs aussi permet de se débarrasser des cellules mortes et des cellules vieilles loolu c'est vrai mais aussi globule blanc bu nekk daa am foo xam ne ci la war a agir pour euh, lutter mm-hmm. contre les corps étrangers. donc cela veut kon partie bu ne dafa am euh, façon globule euh, fa nekk lu ci mel ne bu ñu nee côté cœur bi foofu aussi nee nañ yaram yëpp dafa nekk à presque à moitié rempli par le sang donc ndax globule yooyu ñoom ñoom ñooy défendre li nga xamante ni moom mooy globule rouge yi nekk ci yaram bi yëpp wala côté bu nekk dafa am façon type de globule boo xamante moom moo fay nekk boo xamante ni bu fa benn corps étranger duggee rek ñoom automatiquement dafa am benn réaction bi ñu war def. waaw bon. comme par exemple microbe su duggee ci organisme mm-hmm. d' abord la réaction non spécifique ñoom ñooy njëkk agir c' est à dire la réponse non spécifique mm-hmm. maintenant quand est-ce on parle de réponse spécifique c' est à dire que microbe yi suñu demee ba franchir réponse non spécifique mm-hmm. dans ce cas dañuy defaat appel à d' autres types de leucocytes tels que les lymphocytes B et lymphocytes T ñoom ñooy agir n'est-ce pas Il y a d'autres méthodes aussi hein, qu'on mm -hmm. appelle le vaccin, qu'on appelle le sérum aussi qui permet d'aider mm-hmm. en cas su nekkee affaiblissement au niveau des des des leucocytes pour pour mm-hmm. agir. Mm-hmm. Maintenant une fois que microbe bi dugg ci organisme nit il y a ce qu'on appelle euh, les cellules présentatrices d'antigènes ce qu'on appelle les macrophages d'abord ñoom ñooy agir. ñoom ñooy reconnaître d'abord le corps étranger il y a aussi les lymphocytes qui vont agir Donc euh, euh, ñoom ñooy reconnaître. ñoom ñooy activer maintenant ñoom ñooy sélectionner permettant maintenant aux autres euh, leucocytes euh, tels que le lymphocytes B et les lymphocytes T euh, d'agir contre les corps étrangers. mais donc donc parlant de reconnaissance de ces corps étrangers yooyu ndax dafa mel ni rek ni dëkk bu nekk ak na nga xamante ne moom moom la nit ñi bindoo parce que bu ñu li nga xamante ni moom mooy paludisme. Mhm. dugg ci yaram nit ki nag naka la réaction bi amee ba ba lymphocytes yi taf taf ñu xam ne lii dañoo war a créer li nga xam mooy anticorps pour mën a xeex li nga xamante waaw comme habitude bu mu amoon doon joxe exemple classe damay ne ni sàcc su duggee sa kër doo jékki-jékki rek agir. Mm. foog nga taxaw xool moom moomu kan. Mm. soo demee ba xam ne moom mooy kan aussi dans ce cas tu vas commencer à s'approcher petit à petit. Mm. wala uti uti yeneen métuwaay pour pour jéem ko neutraliser. là aussi c'est la même chose microbe su duggee sa biir organisme forcément les cellules présentatrices d'antigènes ñoom ñooy def ce qu'on appelle euh, la reconnaissance ce qui au temps de latence. Mm-hmm. maintenant suñu demee ba xam ne microbe bi quel type de microbe la dans ce ñoom ci la ñuy mën a produire des anticorps ou des lymphocytes ayant les mêmes récepteurs mm-hmm. parce que microbe bu nekk aussi daa nu mu bindee euh, nu mu bindoo mm-hmm. raison pour laquelle aussi euh, les leucocytes aussi tels que les globules blancs daa am ñoom tamit nu ñu leen di bindee parce que par exemple su nekkee forme étoile la am Mm-hmm. donc il faut aussi nga am benn anticorps boo xam ne forme boobu lay am pour mu mm-hmm. mun ko neutraliser pour mu fixer ko mm-hmm. euh, mun ko éliminer mais su nekkee récepteurs yi euh, nduroowuñu rek dans ce cas forcément euh, anticorps yi dañuy mujjee dañuy mujjee dem c'est-à-dire les dañ leen di mujjee de détruire Mm-hmm. tels que le le le virus du sida le VIH. Mm-hmm. par exemple su duggee ci biir organisme subitement l' su produit des anticorps spécifiques euh, bu moom da gis moom day muter changer forme. Mm-hmm. bay parvenir à détruire affaiblir tout euh, tout l' organisme aussi. tous les virus ñuy am ci àdduna bi yëpp bu duggee ci nit ki nit ki ba yaram bi commencé def ay ay ak yooyu. Mhm. donc virus bi day day muté ngir mën a mën a mën a contourner li nga xamante ne moom mooy yooyu kii def. bon sans dépend ci virus yi aussi ah. Mhm. sans dépend ci virus yi sans dépend ci microbe yi. Mhm. am na ay microbes yoo xam ne dañuy muté. comme le cas du VIH. VIH kon kon ak ak ak coronavirus. ñoo ñoo euh, ñoo bokk ñoo bokk. oui comme euh, SARS-CoV-2 bu njëkk bi. moom moo muté pour joxe Euh, comment des variants delta variant mm-hmm. alpha ainsi de suite mm-hmm. donc loolu dañuy changer forme et dans ce cas il faut ñu produire des anticorps qui sont spécifiques yoo xam ne da leen permettre de de de neutraliser leen mm-hmm. mais ce qui est différent euh, du cas de VIH parce que en ce moment fu ñu nekk ni ba léegi mënaguñu am vaccin boo xam ne ou le sérum qui permettent euh, de lutter contre ça ah, donc ci loolu mu mel ne kon dañuy dugg rek ci wàllu coronavirus bi donc pour yow quel est le problème li nga ni moom mooy le coronavirus que on on disait est ce que euh, am ñu li nga xamante ni moom mooy immunité communautaire bi nga xamante ni mooy waral ñuy xeex loolu parce que nee nañ soj la ay genre euh, kii la lay def yaram bu tàng te yooyu africain yi min nañ ko donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui à l'origine mu jékki-jékki na am benn buum boo xamante ni am na ci cela veut dire que les gens ne maîtrisent pas les virus comme ni ñu maîtriser euh, yeneen type de microbes yi lu ci mel ne microbes yoo xamante ni ñooy joxe ay paludisme yoo xam ne joxe yeneen ak yeneen waaw bon virus bi bon coronavirus nag famille virus bi ci boppam tuddul coronavirus. Mhm. virus bi génn en 2019 SARS-CoV-2 la tudd. Mhm. maintenant SARS-CoV-2 boobu mu ñëwee subitement euh, organismes internationaux yi ñoom ñëpp commencé nañu di produire des anticorps. Mhm. comme soo jëlee euh, autant pour moi des vaccins. soo jëlee comme États-Unis ak Pfizer soo jëlee comme euh, Union européenne ainsi de suite ainsi de suite comme AstraZeneca comme Sinopharm kii Sinopharm Johnson Johnson ainsi donc soo jëlee yooyu yëpp ce sont des comment dirais des vaccins yoo xam ne day permettre lutter contre ce type de microbe mais le problème en est que quoi bu ñu doon defar vaccin yooyu ci SARS-CoV-2 lañ ko defaree. Mm-hmm. ñoom lu ñu woon euh, comment dirais-je en compte le type de mutation. Mm-hmm. parce que soo xoolee avant mutation bii di am. Mm-hmm. amoon beneen mutation c'est-à-dire le variant britannique bu amoon. n'est-ce pas donc variant britannique boobu continue muté ba joxe ay des delta alpha ainsi de suite n'est-ce pas. donc raison pour laquelle au niveau euh, à l'échelle nationale maîtriser guñu à 100 pour cent ce, ce type de virus pour dire vrai mm. maîtriser guñu ko par rapport euh, avec euh, certains types de virus ou mm. microbes yoo xam ne qui existait avant euh, ni ñu ko neutraliser ba utiliser benn vaccin boo xam ne da koy permettre la production d'anticorps pour neutraliser. mais donc si on ne maîtrise pas li nga xamante ni moom mooy virus boo xamante ni day muté à chaque fois pourquoi parler de vaccin alors que sida bi même cas moo ci am pour ça ñu bëggee créer moo am mutation donc est-ce que. c'est pas précipité ñuy wax naan ay ay vaccin wala euh, yow bu ma déggee sa wax dañuy confirmer li nga xamante ne moom la ñeen ñi di wax naan ce sont juste des des des des phases yu ñuy def ci ci être humain yi parce que vaccin ba léegi mënaguñoo trouver vaccin tant que amaguñu euh, loo xamante ne lu wóor la ci benn virus boo xamante ne à chaque fois day day muté day muté. non non non parce que fu may waxee maîtriser wuñ ko à 100 pour cent par exemple su ma jëlee kaw tétanos. Mm-hmm. moo jëlee kaawtenaa comme toxin tétanique ou bacille tétanique mhm. foofu dañoo maîtriser defar benn vaccin boo xam ne même si amoon mutation aussi tamit ce mhm. type de vaccin day agir mhm. maintenant ce qui est opposé parce que soo xoolee fii euh, durée bu ñu defaree vaccin bi c'est un peu limité. Mm-hmm. environ cinq mois six mois. mais durée vaccin est-ce que dina ñu naan durée vaccin ça ça dix ans voire cinq ans mm-hmm. euh, dix ans voire même n'est-ce pas. mais c'est certifié qu'on peut faire vaccin à à d'un an. effectivement. Mm-hmm, c'est possible de faire un vaccin en moins d'un an. maintenant phase préliminaire parce que bii. mun naa ne c' est une précipitation. Mhm. parce que soo xoolee dafa toucher lu bëri ci au à l' mondiale. Mhm. comme l' économie daf ko loon comme dans domaine boo jël daf ko daaneloon. Mhm. maintenant précipitation boobu moo tax euh, les organismes internationaux avec certains des pays aussi. ñu bëgg a produire euh, ku nekk produire vaccin boppam. pour mën a lutter contre. maintenant c' est pas question que maîtriser wuñ ko à 100 pour cent non parce que avant en 2019 ba 2020 benn type. de virus moo fi nekkoon muy SARS-CoV-2. Mhm. ils on réussi à fabriquer un vaccin qui lutte contre SARS-CoV-2 su nekkoon mhm. SARS-CoV-2 moo fi nekk ba léegi Johnson Johnson bii ngay dégg. bu mhm. Pfizer defar ak AstraZeneca bii ngay dégg ak Sinopharm ainsi de suite donc yooyu yëpp de lutter contre SARS-CoV-2. mais bul fàtte aussi tamit euh, chaque type de virus day muter c'est comme aussi euh, parce que il faut connaître dans l'organisme de l'individu dafa am lu ñuy wax ADN ARN. maintenant si ADN bi mun na am mutation. donc su amee mutation forcément day changer séquence bi aussi. Mm. moom moo arrivé aussi soo xoolee ci SARS-CoV-2 bi virus bi dafa muté bu mu aussi donc au niveau de cette séquence d'ARN ou d'ADN donc c'est ce qui a entraîné bien sûr. les types de variants yi ngay dégg. C'est pourquoi on parle de vaccin ARN. ARN euh, parce qu'il existe deux types de virus. Il y a ce les virus ARN et les virus à ADN. Mm-hmm. Les virus à ADN qu'on appelle adénovirus et les virus à ARN qu'on appelle ribovirus aussi. Mm-hmm. kon coronavirus moom ci ban ci ADN la bokk. coronavirus euh, jusqu'à présent euh, si ADN la. parce que soo xoolee Johnson Johnson bu ñu defar bi donc c'est un vaccin boo xam ne ci adénovirus lañ ko lañ ko defaree. C'est-à-dire ça agit directement au niveau de, de l'ADN. Mm -hmm. euh, de même qu'AstraZeneca aussi. Hein, donc, ça permet d'agir. Mm -hmm. Et ces, ces, vaccins ont des efficacités, bien sûr, contre SARS-CoV-2. Mm -hmm. Mais aussi ont des efficacités contre variant Yingedegni, variant Alpha, variant Delta. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire c'est pas à un taux très élevé par rapport euh, à SARS-CoV-2. Euh, léegi euh, en parlant ci loolu ba léegi euh, ci wàllu coronavirus bi donc pourquoi muy attaqué li nga xamante ni moom mooy yenn système respiratoire yi parce que buñ ne bu ne virus d'habitude dañoo wax ne day day day attaqué li nga xamante ni mooy plaquettes sanguines yi attaqué li nga xamante ni mooy globules rouges yi daal di jéem a éliminer yooyu mais bii day dem directement ci yenn organes yu vitales yi lu ci mel ne les organes respiratoires pourquoi coronavirus ndax. forme feebar la boo xamante ne juste attaque bi nga xamante ne moom mooy mooy poumon yi wala juste dafay dafay xool côté bi nga xamante ne moom moo moom moo gën a mën a euh, affaiblir nit ki mu mu attaqué foofu. waaw bon coronavirus soo xoolee signe signe signe maladie bi sax soo xoolee. Mm-hmm. da ngay dégg nit ki ay céphalées lay am des mm-hmm. maux de tête. Mm-hmm. da ngay dégg nit ki day am des problèmes respiratoires nit ki day sëkkat soo xoolee comme genre grippe la. te qui parle de grippe parfois parle des poumons. n'est-ce pas parce que respiration foofu la. raison pour laquelle maladie bi su duggee sa biir organisme subitement moom lu muy attaqué c'est d'agir à ce niveau. au niveau d'agir oesophage bi pour dem directement. mooy voie bi passé pour pour les voies mm. respiratoires pour aller directement se loger au niveau des poumons. Mm. pourquoi parce que foofu la ñuy a mën a multiplier foofu la ñuy gën mën a de parce que chaque type de virus aussi a un lieu de multiplication bien déterminé. par mm. exemple dama lay ne comme les virus. si on parle Ebola ok ci direct la dem pour mun a multiplier foofu en mhm. dehors de l'organisme moom mënuñu mënuñu fa multiplier mhm. quelques jours après ou quelques heures même avant même dañuy dañuy aussi mhm. mais donc ci boo defee comparaison li nga xamante ni mooy coronavirus ak yeneen façon virus lu ci mel ne euh, virus du du sida virus Ebola donc ban moo ci ba nga yaakaar ne fi mu nekk nii dina neexal lijjanti parce que de var de delta on parle aussi delta plus ci yenn dëkk yi am na benn ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus comme que à chaque fois on parle de variant mi ngi multiplier wu ci ci yenn dëkk yi di changer est-ce que vaccin yi fi nekk nii ça peut servir à grande chose parce que euh, ba léegi mi ngi ñu ngi continuer gis ay ay kii bees. waaw ah, mais effectivement il faut nga xam aussi tamit euh, l'utilité d'un vaccin. parce que le vaccin ça permet de prévenir le mm-hmm. vaccin aussi day empêcher la propagation de la maladie mm-hmm. donc bien sûr que vaccin yi am nañu efficacité sur euh, les nouveaux variants ngay dégg mm-hmm. dama jël exemple ici su ma jëlee Johnson Johnson par exemple donc 88 pour cent d'efficacité sur euh, le variant Delta et 93,7 pour cent sur le variant alpha donc am na efficacité c'est-à-dire ici c'est pour lutter contre les n'est-ce pas mm-hmm. soo jëlee AstraZeneca aussi am na 67 pour cent euh, contre Delta et 74 mm-hmm. virgule 5 pour cent contre contre Alpha mm-hmm. donc am na efficacité mais euh, cela ne signifie pas que euh, ça permette de de de de prévenir contre cette maladie no mais loolu waxoon naa ko fi léegi-léegi tout à ma ne vaccin yi bi ñu koy defar c'était à base de SARS-CoV-2 si c'était SARS-CoV-2 donc là ça n'aurait pas de problème mais vu que virus de dafa muté et su mutee forcément day am séquence yu yu changé mm-hmm. maintenant euh, ces vaccins day permettre de lutter contre les formes sévères mm-hmm. raison pour laquelle il faut ce qu'on faire ce qu'on appelle des injections de rappel mm-hmm. uniquement benn vaccin moo fi am ba boo xam ne c'est à une seule dose Johnson Johnson yeneen type de vaccin yëpp dañu lay nee nii soo ko vacciné woo tey dañu ne d'ici 21 jours il faut venir faire ce qu'on appelle euh, une injection de rappel. donc même euh, ñoo ngi waxaat aussi euh, fan yi faut avoir une troisième dose bien sûr pour sécuriser l'organisme aussi euh, permettant la production d'anticorps efficaces pour lutter contre ces, variants. Mais euh, de, de, ce grippe, grippe bi nga xam ne moo fi nekk avant ñu wax SARS-CoV-2 parce qu'on disait partout au Sénégal allez-vous vacciner contre contre la grippe est-ce que c'était c'était pas pour juste pour éveiller les les les les personnes sur euh, benn éventuel feebar boo xam ne day am dans l'avenir mais il voulait pas dire Euh, ce qui ce qui en est de de cette maladie parce que dañ ko def ay quelques mois après les gens ne sont pas vaccinés ils n'ont même pas a le coronavirus il faut se vacciner mais ba léegi les gens ne sont pas conscients ci li nga mooy feebar boobu est que nekkul lañu ko jàppee rek comme ça suñu feebar tropicale yi lu ci mel ne euh, soj bi lu ci mel ne euh, njàppataan gi lu ci mel ne affaire est que nekkul loolu africain jàpp moo tax ba léegi ils ne veulent pas donc faire confiance à à à soo xoolee chaque année chaque année bu yàlla def il y a ce qu'on appelle le PEV programme d'élargissement de vaccination mm-hmm. boo xam ne ça permet de lutter contre certains microbes mm-hmm. dañuy vacciner contre la grippe bi nga wax contre mm-hmm. les gens contre non man nga ñaa vacciné wu de waaw bon peut-être yow <laughs> peut-être mais normalement normalement waroo toog benn diiro boo xam ne waroo jël vaccin contre un microbe bien déterminé vaccin wala sérum ki koy defar an vaccin ak sérum ok sérum ça permet de guérir. Hmm. su microbe bi duggee nga jël vaccin ça ne sert rien dans ton organisme. Hmm. mais microbe bi su duggee dans ce on ne parle plus de prévention mais on parle euh, comment dirais-je euh, euh, de traitement. de traitement kon man fu ma xasee ba nëgee ba ba am ba corona su ma demee vaccin bi donc nekkatul. ça n'a plus nekkatul vaccin mais traitement lay def quoi. ça n'a plus d'importance. Hmm. raison pour laquelle maintenant à l'hôpital il y a ce qu'on appelle les cas d'urgence cas d'urgence su amee dans ce cas la ñu utilise ce qu'on appelle la sérovaccination mm c'est-à-dire le sérum ça permet de guérir mm mais la vaccination c'est-à-dire l'utilisation du vaccin ça mm -hmm. permet de prévenir en cas ce mm-hmm. type de maladie raison pour ma ne chaque année le programme d'élargissement de vaccination est mis en place pour vacciner les individus mais plus précisément soo xool euh, dañuy jël les enfants euh, de tant de tant d'années Mm. mais en réalité nit ki comme par exemple man waruma toog benn durée boo xam ne jëluma injection euh, de contre ah, le tétanos mais la mais monsieur Sina yéen mais yéen ñi ñi yéen mais am na ñu vacciné ñoo xamante ni euh, si Covid 19 mais ils sont aussi malades donc qu'est-ce qui explique cela ñeneen ñi vacciné nañu ko avant il a attrapé le virus aussi donc mm. est-ce que aussi donc euh, li ñu naan nit ñi allez-vous vacciner est-ce que nekkul juste ce foofu manque de communication la. manque de communication mais mais on peut on peut être vacciné et tomber malade ah, ah, ah, de, de, de la def naa genèse bi tuuti tuuti. Hmm. Euh, bu ñuy commencé. ma ne hmm. la vaccin yi ñu defar c' était contre SARS-CoV-2. Hmm. est ce pas. maintenant avec le nouveau les nouveaux variants. que ce soit alpha euh, del, euh, delta aussi donc là ça permet vaccin yi day permet de lutter contre les formes sévères. soo ko jëlee cela ne signifie pas que yow mënoo attraper maladie si. Mm-hmm. parce que bu ñu koy defar c'est pas à base bien sûr de ces. de ces virus mm-hmm. présents. da nga koy am raison pour laquelle ñu ne même soo vacciné il faut respecter les gestes barrières jusqu'à présent. Mm-hmm. n'est-ce pas. Donc là, euh, ce n'est pas des sarabias, c'est juste une, euh, comment dire, le manque de communication euh, envers la population tout court. Mm -hmm. Parce que en réalité, nous devons communiquer, nous devons la communication, nous mm. Parce que ça, la communication sur le vaccin. Avant le vaccin, le président Maxal Oumande, vaccin, à un moment donné, même, il avait désisté de dire que voilà, soit les vaccins, je vais prendre les vaccins et donner ça pas mm-hmm. Mais à l'heure actuelle où je te parle, dugal si hôpitaux yi wala nga dugg si centre de santé mais rang bu gudd nga fay fekk pour vacciner wu. Mm-hmm. parce que information bi moo ngi jàll. no mi ngi jàll par par panique wala. no pas par panique pas par panique. pas par panique. Mm. parce que ñi ñi jeunes yaa ngi dee. sama bopp sama yaa ngi dee. Ah, effectivement ay ñoom mu daw daw kii ji quoi. mais mais regardez la multiplication des morts. <laughs> Uh-huh. depuis variant delta bi mu duggee ba léegi mhm. les pays yoo xam ne euh, la moitié de leur population sont vaccinés mhm. mais ce ces pays ont un taux de mortalité faible en ce moment mhm. par rapport aux pays yoo xam ne ñoom seen euh, seen vaccin c'est-à-dire que la population ou la moitié de la population vaccinée wul instant yooyu ces pays ñoom ñoo gën a am un fort taux de mortalité dama lay jox exemple euh, comme pays comment dirais-je soo jëlee Afrique du Sud cinq virgule huit pour cent de la population ñoom ñoo vacciné wu xoolal taux de mortalité bi en ce moment mm-hmm. nga comparer ko par rapport a Royaume-Uni je ne dis pas euh, Grande-Bretagne tout court mm-hmm. n'est-ce pas je dis Royaume-Uni soo ko comparer où la population euh, vaccinée, euh, le pourcentage est égal à 58,5%. Mm-hmm. Le Sénégal, est-ce que 0,5%? Ouais, moo moo tax ma ne la manque de communication bi la. manque de communication parce que dañoo war wax. sénégalais yi wala population bi lan mooy vaccin. lan mais pourquoi jëluñu jëluñu ñu mel ne yéen yéen ñi nga xamante ni yëpp wala booy am doon xam suuf vaccin bi moo tax nangu leen toog ci kanam plateau yi comme ni nga defee nii toog ne vaccin bi lii mooy njariñ bi mais yéen ñi seen côté ngeen toog rek léegi politiciens ñooy nekk naan nañ vacciné te ñoom ñoom sax vacciné wuñu certes am na benn côté. Hmm. mais soo xoolee depuis première vague les agents de santé. Hmm. ñoom évoqué woon man personnellement. je suis yóbbu nga vaccin sa école nga vacciné bon man yóbbu ma vaccin. Hmm. mais quand même quand je fais cours. Hmm. à chaque fois je sensibilise parce que xam nga tamit vaccin c' est doo ñëw nga ne nit par force. Hmm. mais quand même tu sensibilise parce que il y a soo jëlee classe troisième par exemple am na programme boo xam ne ci lii lay wax. ci affaire vaccin yi. Euh, benn partie bu ñuy wax immunologie. immunologie soo jëlee classe terminale L terminale S aussi ça part de l' immunologie. maintenant une fois euh, su may def leçon bi. dans ce cas su ma duggee ba ci vaccin yi rek je commence à sensibiliser n'est-ce pas wax leen maintenant nag à tout un chacun quand même de de de voir parce que doonee nit ki vacciné wul vacciné mais yow soo xamee luy vaccin utilité d'un vaccin njëriñu vaccin ak sérum donc dans ce cas man yaakaar naa ni suñu la waxee il y a virus ou bien il y une maladie donc il y a des vaccins qui luttent contre cette maladie bien sûr il faut il faut parce que soo xoolee euh, nu ñu nu ñu koy defaree c'est c'est par des euh, comment dirais par des doses. Hmm. n'est-ce pas ay essais cliniques la ay essais cliniques. essais cliniques def instant bi pas parce que suñ koy defar. Hmm. il y a des phases. il y a ce qu'on appelle test yi il faut ñu test ko si nit ñi aussi nag voilà. waaw mais effectivement. parce que donc ça veut dire day day test si nit ñi fi vaccin ba xam c'est efficace ou c'est pas test si nit yi pour euh, xool c'est efficace ou pas. Hmm. parce que soo xoolee euh, par exemple. nga nga autrefois on disait que certains vaccins c'était dañ koy dañ koy si ay jinax ak du genre. Mhm. moo tax la plupart suñu mbokk yi ñuy def santé boo demee jinax la def loolu daal encéphale ak affaire du genre. donc est-ce que nekk fu mu nekk nii te pour préparer la pour tester le vaccin ils sont obligés de ñu daal koy piquer ay nit pour xam ndax vaccin bi mi ngi marché wala marché woo. parce que il faut moom il faut ñu test ko moom. aux États-Unis mm-hmm. Johnson Johnson bu mu génnee sur vingt deux mm-hmm. mille neuf cent trente et un personnes vingt deux mille neuf cent trente et personnes yu ñu injecté euh, Johnson Johnson bu Pfizer defar bi mm-hmm. parmi les vingt deux mille neuf cent trente et il y a que vingt deux mille huit cent yoo xam ne résisté nañu n'est-ce pas le reste ñoom résister wuñu hmm. donc il y a l'efficacité l'efficacité am na efficacité mais aussi si si système immunitaire nit ki nit ki aussi non am na efficacité si système immunitaire parce que le rôle du vaccin c'est quoi parce que benn substance parce que foog nga comprendre aussi microbe bi la ñuy jël ñu wàññi dose am ko mu jaar hmm. ci ay processus bien déterminé hmm. maintenant une fois que ñu vacciner ko nit ki donc day permettre nit ki organisme di produire des anticorps mais aussi permettre aussi la formation des cellules mémoire et spécifique nest maintenant loolu soo ko defee ñu xayma ñu jël tant de personnes ci tant de personnes ñu ne la les quatre-vingt-dix-neuf pour cent n'est-ce pas ont résisté c'est seuls les 1 pour cent qui n'ont pas résisté donc il y a l'efficacité mm -hmm. il y a l'efficacité de ce vaccin mm-hmm. là c'est la même chose aussi c'est à dire que ici il y a manque de communication envers la population et je peux dire comme il, n'y a même pas de manque de communication parce que so xoolee les agents de la santé depuis la première vague ñoom wax nañu ko wax nañ ko en se insister nañu sur euh, les méthodes les gestes barrières vaccin yi bu mu ñëwee aussi ils ont fait une bonne communication parce que récemment je vois il y a une vidéo qui circule partout ñu ne voilà Johnson Johnson a été supprimé Johnson il y avait euh, une, une un individu de 32 euh, dans certains pays mais là c'est une vidéo boo xam ne qui date de du premier er février c'est du 1er février c'est en même temps boo xam ne AstraZeneca aussi a été suspendu par euh, l'OMS n'est-ce pas et mm. pourtant Sénégal daf ko continuer woon di di di vacciner avec euh, mm. Maroc ainsi de mm. suite waaw léegi ci loolu man leen moom jaaxal ci vaccin Sénégal yi parce que dañoo ne vaccin léegi dañ koy tasaar léegi ci bërëb yëpp te on di que un vaccin doit être conservé au-delà de plus 3 euh, degré plus 4 degré am na yoo xamante ne day nekk mooy cinq degré ñu jël suñu yi defoo ñu ko ci ay ci ay xaw ma ay la xaw ma ay ay euh, ñu koy waxee sax ay glacière ñëw ne dañu koy vacciner nit ñi alors que c'est pas conservé dans les meilleures conditions est-ce kii magnétique ñenn naan te damay miir ñenn naan sama parce que vaccin aussi dafa am ay ay mode a am aussi. non damay ñëw d'abord ci li nga mujjee wax léegi léegi c'est-à-dire soo vacciné day am effet secondaire. Hmm. tout vaccin possède des effets secondaires. Mm. mais vaccin bu ñuy def commande bu mu collé moom boobu. non loolu loolu Mor yow suñ la ko waxee sax tu tu dois savoir. que ah, là mais les images sont là les images yi non attends un peu qui qui qui nous euh, kooku jëlul kol collé ko fii rek. ah mais jël na ku du teg jël lépp teg rien ne nous dit rien ne nous dit. Mm-hmm. parce que est-ce que euh, outil yu mu utiliser defu ci kol mm-hmm. il n'y a aucun aucun je aucune entreprise boo xam ne wane na. non-efficacité des vaccins. Mm. Tous les vaccins sont efficaces, mais il faut comprendre aussi que tous les vaccins ont des effets secondaires. Hmm. dama lay jox benn exemple terre à terre rek comme le BCG. Hmm. xale xale à ba âge su ko injecté hmm. mais durant cette journée. yaram bi day tàng. bi day tàng fu ñu ko piqûre day metti n'est-ce pas des céphalées aussi ainsi de suite. c'est la même chose parce que loo xam ne moom soog a dugg sa yaram. forcément mu déclencher quelque chose. parce qu'il le temps de la temps de reconnaissance boobu mhm. loolu mooy entraîner bien sûr soit ngay am ay céphalée mooy bopp buy métti mhm. soit ngay am ay nausée soit que fu ñu la piqûre foofu di métti ainsi de suite et mhm. cetera et cetera loolu tout vaccin possède des effets secondaires quel soit le type de vaccin à l'immédiat wala long terme parce que nee nañ am nañu bëri d'ici deux ans ñenn ñi vont avoir des AVC d'autres vont mourir loolu loolu et moi mourir loolu loolu nit yi ñoo koy wax rek nit yi ñoo koy wax su nekkoon euh, à long donc rey nañu ñun ñëpp. parce que mm-hmm. ñun ñëpp à bas âge jël nañu BCG. Mm-hmm. donc en ce moment certes on peut avoir même des 28 des 30 ainsi de suite. est-ce que donc on a des des des AVC ainsi de suite. Mm-hmm. maintenant ce qu'il faut comprendre aussi am na li nga jot a wax fii léegi nga ne dañuy jël di ko dugal ci ay carafe lañ leen la wax bu ko soleil laal. Ah, mais conserver mais conservation mais à plus de degré mais à plus maintenant fu ñu ko dugal foofu. parce que xoolee da ngeen ne thermos euh, comment dire autant non mais est-ce que ci biir lieu boobu defuñu si aussi des éléments qui répondent aux mêmes conditions physiologiques. Ah, mais day mel comme kii rek le fameux garabu tétanos balaa nga nga ko piqûre nit ki donc mais vaccin yoo xamante ni je le vois comme ça ñu teg ko ci kaw bi mm. nii ñu ñu cuuj la ñu cuuj la alors que ko conservé woon. il faut comprendre fu ñu ko conservé woon fu ñu ko dugaloon. Mm-hmm. mais soo ñëwee dañuy génnee jël c'est comme tétanos soo demee au niveau de la pharmacie. est-ce que fu ñuy def euh, le le sérum ou le vaccin antitétanique foofu la ñuy c'est même chose que fu ñuy teg les médicaments bokkul. Mm-hmm. soo ñëwee nga ne jaay ma euh, sérum antitétanique ou le vaccin antitétanique da ngay gis mu dugg ci biir génne ci ko foofu parce que dafa am méthode de conservation boo xam ne c'est la même chose aussi que tout un vaccin. Mm-hmm. maintenant fu ñu ko euh, fu ñu ko denc. mën nañ ko gën dugal ko comme ci endroit yi nga wax yi mais endroit yooyu aussi ça répond aux mêmes conditions. de conservation. que fu ñu ko dencoon ci biir glacière ci biir glacière ça répond aux mêmes conditions que. Mm. fu mu nekkoon au début. Mm. c'est-à-dire euh, dencuwaay originel ça répond aux mêmes conditions. Mm. maintenant une fois que mu ñëw fii à à l'hôpital s'il y a des dañuy xëcc parce que c'est les mêmes choses. c'est la même chose autant pour moi dañuy génne vacciner la nga dem ñu teg keneen ñëw ñu génneewaat encore. mais la dañ duñ ko jël jukkoon nii ci kaw parce que aussi wax nañ leen euh, que ce soit le vaccin que ce soit le sérum. kenn war ko teg à l'abri de l'air aussi. Hmm. voilà donc li ñuy jeexalee moom mooy beneen question bi nga xam moom la ñuy jeexalee euh, pour euh, daal di euh, yëkkati plateau bi moom mooy virus bi nga xamante ni feeñ na fi nga xamante ni mooy Guinée te Guinée dafa jëloon ne Sénégal foog bu ku ñëw dëkkam nga. di def li nga xam ne mooy passe sanitaire bi. donc yow boo doon am benn euh, taxawaay booy am ci boobu virus nga xamante ne feeñ na au delà Ebola bi ñu amee woon am beneen virus bu feeñaat boo xam ci ay ma ay euh, malaak yu ni mel ba taxawaay nga nga ngay jox ñi nga xamante ñoom ñooy ñoom ñooy autorité sanitaire ngir taxawee ko ngir mën a xeex feebar boobu. waaw autorité sanitaire sanitaire yi moom ils sont toujours vigilants te ci loolu la ñuy dox depuis boobu léegi vigilance boobu maintenant comme que am na. ñoom bàyyiwuñu suñu frontières yi avec la Guinée comme ça c'est en surveillance maintenant s'il y a la propagation de cette maladie mu wóor na lañ dugg donc forcément le président va prendre aussi ses, ses, ses dispositions mm -hmm. donc pourquoi pas fermer les frontières mm -hmm. pourquoi pas limiter aussi bien sûr les déplacements entre ces deux pays mm-hmm. pourquoi parce que soo xoolee comme euh, SARS-CoV-2 nu mu fi duggee mm-hmm. déplacement mm-hmm. c'est-à-dire que étranger moo ko fi andi dugal ko fi ainsi mu propagé wu dem ba euh, au niveau des quatorze régions. voire mm-hmm. même ah du Sénégal ba laal ko. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, vigilance rek laa leen di booy jox beneen beneen conseil comme ça émission bi day am conseil bi ñu joxe dernière dernière heure bi. conseil booy jox africains yi wala boog sénégalais ngir ñu mën a maytu feebar yi nga xamante ne day jóge ci mala. dem ci ndikk naka la mën a mën a kii parce que ñoo ngi yor ay xar ñoo ngi yor ay béy ñoo ngi am ay xaj ñuy kër ak ak ak muus yeeg yu ni mel kaña yi la nit ki a def ba ba a maytu yenn hmm. ne si kër gi mala yi si kër dañu leen kon seen kaña yi nekk si kër gi yooyu jinax dañu leen parce que parce que doo dégg ñu ne la xar bi feebar na nañ ko hmm. vacciné temps mu mun a lekk temps xar bi nañ ko Hmm. maintenant mala bu nekk dafa waa aussi comme nit. parce que loo hmm. dégg ñu wax ay les vétérinaires. donc soo demee à l'UCAD université Anta hmm. Diop am benn partie boo xam ne ça ça ça. ça forme ci loolu la ñuy former nit. mais vaccin yi aussi foog ñu toppatoo euh, mala yi autant pour moi foog ñu leen aussi. est-ce que ministre de l'élevage aussi moo dox ci loolu. ah effectivement effectivement pas ministre de l'élevage tout court mais il y a aussi l'aide de, du ministre de la santé. parce que le plus santé que ce soit au niveau des animaux que soit au niveau des ah. humains. aussi donc. Euh, mais yaakaar naa ministre de l'élevage moo yor mala yi. ministre de la ma ne la en coopération en coopération. parce que mm. qui parle de santé. l'élevage moo yore mala yi c'est vrai mais santé élevage bi kat moo ko yore. Mm-hmm. donc c'est en en coopération ñoom ñaar dañuy coordonner aussi donc pour mën a. Euh, comment dirais-je mettre euh, fin ci yooyu tamit. ñu bàyyi la nga def sa dernier mot monsieur monsieur waaw sama dernier mot mooy euh, juste ah je le répète encore surtout les agents de la santé bu ñu découragé nañu continuer seen information yi. Hmm. les partis politiques nañu continuer di sensibiliser di wax la réalité des choses. Mm-hmm. Eh, euh, ci ci ci ci vaccin bi lu xew aussi tamit permettant bien sûr d'aider la population parce que soo xoolee en ce moment il y la multiplication des morts période bi ñu toll ce sont les jeunes ñoo ñoo nekk nii di mm-hmm. disparaître bien vrai que avant c'était les vieux mais ce sont les jeunes et soo xoolee dëkk euh, jeunes moo ko yore adulte moo mm-hmm. ko yore donc qu'il continue euh, comment dire la sensibilisation bien sûr sur sur ce dernier sama dernier mot aussi di leen remercier euh, ci invitation bi aussi mhm. bu baax a baax di remercier tous mes collègues aussi mhm. et mes amis aussi mhm. et tes élèves aussi oui surtout mes élèves hein ceux qui ont le BFM j'ai euh, le bac autant pour moi euh, là je les félicite hein je les félicite et ceux qui ne l'ont pas aussi je les encourage hein parce que c'est pas la fin du monde c'est la réalité de l'examen qui est comme ça c'est deux choses réussite et échec maintenant ceux qui ont réussi c'est pas qu'ils sont les plus forts euh, c'est ce qui ont échoué aussi c'est pas qu'ils sont les plus faibles defar rek euh, pour préparer année prochaine aussi. te dem vacciné hmm. Johnson Johnson hmm. j'ai pris qu'une seule dose de Johnson Johnson. ah j'avais pris AstraZeneca avant nag hmm. euh, avec durée bu ma toog bi voire même un deux mois donc sama deuxième dose bi dama dem jëli ji directement Johnson Johnson. en tout man moom je pense que dinaa ah, xool ba xam na laay ndax laay def ba euh, jëlaat.

si fi nga jógee sori na y' a y' a beaucoup de choses woon euh, def ak BFM bi y' a les corrections mais tu as eu respecter li nga xam mooy ñeel wàllu lu ñeel wàllu nit ki ak wér yaramam loolu waroon tey ñu daaloon ko fii moom monsieur jógee fi nga xamante mooy école a 3 leen nuyu ñoom aussi de passage monsieur ak élèves yi nga xamante ne ils ont réussi leur baccalauréat mm-hmm. ñi def BFM aussi euh, ñi leen ñaanal yàlla yàlla may leen examen bi nga xamante ne la ñuy def euh, ku ci nekk bu si wërsëg nekkee yàlla may la ko leen jaajëfal leen jox di daje euh, semaine prochaine ci beneen numéro ak ci yeneen thème jërë ngeen jëf